njàmbat lu bari li ci kër gi ak wax ju bari ji ci kër gi sonal na borom kër gi eh, tax na rek ci loolu lay doore nuyu képp koo xamante ni yaa ngi toog ci kër gi toog jàkkaarlook ñun di ñu seetaan juróomi at yàlla ñu di koy def eh, ci semaine bi mu nekk nag loo xamante ni wax dëgg yàlla ni ko Souleymane fay waxee juumul ndax njàmbat li bari na lool wax ji bari na lool. sonal lool borom kër gi sonal itam ñi nga xamante ni ñoom la ñuy dal seen kaw loolu nag tax na rek ñu yëkkati anniversaire bi jagleel ko mbokki téléspectateurs yi nga xamante ni ñoo toog jàkkaarloo ñun di ñu seetaan waaye nag du tee danañu delloo buum ca boy boy ga mooy rek nañu leen daan nuyoo. ñu nuyoo leen ko waaye dellu sant yàlla bu baax a baax julli sëlmal ci sangu-sang yi Seydina la tax nag saa su ne rek ñuy doore di sant yàlla ndax am na ñoo xamante ni ñun ak ñoom ñoo maase woon jamono tey yàlla def na ñoom ñi ngi ci biir suuf ñun ñu ngi fi des as néew toog di wax ak yéen am na ñoo xamante ni tey ñu ngi toog ci seen kër euh, maase ak ñun jamono toog jàkkaarlook ñun di ñu seetaan ñañu mag di ñu seetaan waaye itam ay kilifa diine kilifa aada di ñu seetaan di yëkkati ay ñaan di ñu jébbal kon jaadu na saa su ne rek ñu doore ko ci ñoom sant yàlla mi nga xamante ni nag moom ma ñu moo ñu may saa su ne ñuy mën a toog di jàkkaarloo ak yéen ba amal juróomi at eh, ci semaine bi ndax fàttali lay doon rek émission kër gi ni ki euh, semaine nup le cinq avril à partir du cinq ci lañ ko dooroon maanaam ay côté le 20 la ñu yegsi woon 2STV wala sax le 19 la ñu yegsi woon fi nga xamante ni mooy 2STV le cinq ñu départ démarré li nga xamante ni mooy sunu programme kon jaadu na buñ ci tolloo rek saa su ne euh, ñu feete ko euh, ci feete goo xamante ni nag ni ñu leen koy waxee saa su ne lépp loo xamante ni dafa jëm ci wàllu caaxaan xam nañ ne yëtteelul kër gi lay jafe-jafe doomu aadama bi moom la ñuy jéem a fexe bay ànd ak moom kon anniversaire bi bu ñu ko yëkkatee rek nañu jàpp ne danañ ci natt li nga xamante ni jot nañ ko def ci at mi jot ko réaliser lépp nag ànd ci ak yéen yi nga xamante ni saa sunu ne yéenay seen cofeel jëmale ko ci ñun ni ñu ko waxee ginnaaw bi ñu santee yàlla ba noppi nag julli sërmal ci sangu-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant sunu ñaari wayjur yi ñu meññ teg ñu ci yoon woo xamante ni yoonu siraatal mustaxima la teg ñu ci yoonu mbaax yar ñu ci euh, tegginal ay wax tegginal ay kàddu waaye roy ci sunu wayjur wu jigéen nitam euh, ci anam boo xamante ni rek anamu déglu ñëpp la anamu taataan ñëpp la waaye tam kenn ku ci nekk itam lay sa yitte sa morom du ko xam kon dafay jaadu bu ñu yaree ci loolu saa su ne rek bu ñu xëyee suba toog jàkkaarloog yéen sargal ñi nga xamante ni ñooy sunuy wayjur te meññuñu ci ni nga xamante ni Euh, du ñu wax ne kat euh, neex na ñëpp waaye mën nañu jàpp daal ne ñëpp suñuy soppe lañu ba tax na rek yar bi ñu yar dañ koy delloo suñuy wayjur waaye itam euh, bu ñu santee suñuy jur ba pare dañu leen di sant yéen ñi nga xamante ni sax su ñu ngi yëkkati ay kàddu jëme ko ci yéen léeg-léeg itam ñu wax loo xamante ni dina naqari nit jëme ko ci moom waaye nag terewul dina dawal compréhension xam ni defaruñu tax a jóg te itam nag li ñuy wax rek loo gis lu ne rek jàpp ne lii mënta nekk wala lii jëm na ci sama kaw xëy na am na keneen koo xamante ni moo ko dund kon loolaa fa yóbbu looloo ko yóbbu ci télévision bi ndax ñu ci bari ndeysaan léeg-léeg ñu def émission ba neppi ñu wooñu nañu ku leen dugal sama biir kër ak ku leen expliquer sama problème mu mel ni ko jaadu na kon saa su ne rek bu ñu xëyee sant leen yéen ñi nga xamante ni yéenay téléspectateur 2STV rawatina seen émission kër gi moo xam nga nekk ci biir réew mi moo xam nga nekk bitim réew ñoom ñëpp ñu ngi leen di bàyyi xel di leen nuyu di leen ziar di rafetlu ànd bi nga xamante ni ñu ngi koy ànd ak ñun waaye saa su rek bu ñu tolloo ci anniversaire ñu jël ak njëggal toftal ko ci ndem mës nañoo wax loo xamante ni mës na leen a déranger buñ ci jógee itam gis ngeen saa su ne dañuy sant ñi nga xamante ni ñooy suñu kilifa diine nuyu leen sargal leen waaye itam ñaanal leen yàlla yàlla saxal leen ci réew mi ñu yàgg di ñu jiite ci lu jëm ci wàllu diine ndax bu ngeen seetee waxtaankat yi eh, ki ci mujj di rek eh, Thierno eh, nekk koo xamante ne doon na wax ci wàllu daara yi wax na ne boo ko nattee ci ab tali nga xool rek saa yu ñu xëyee suba ñëpp dëgmal ndakaar ñii dinañ jaaree Liberté 6 ñii jaaree Yoff ñii jaaree Tëngéej ñoom ñëpp kenn ku ci nekk am foo jaar waaye destination bi du fenn fudul fi nga xamante ni mooy Ndakaaru kon bu fekkente ni kenn ku ci nekk bootu nga ci këru diine kenn ku ci nekk bootu nga ci tarixa ñooñee nga xamante ni ñoo ñu jiite te di ñu teg ci yoonu siraatal mustaxima di ñu teg ci yoonu mbaax bu réew mi tolloo ci ñol-ñol euh, ñu yëkkati seen i kàddu taxaw dalal réew mi kon jaadu na ñoom itam saa su ne bu ñu xëyee rek ñaanal leen yàlla yàlla saxal leen ci sunu kanam ñu yàgg ñoo jiite ci lu jëm ci wàllu diine ji waaye lépp loo xamante ni tam namm nañ ko ci ñun saa bu ñu xëyee rek ñaanal leen yàlla yàlla kàttanal leen ba ñu mën koo matale la ci ëpp solo nag lañuy xaar ci kilifa diine bi ba tax saa su ne ñu di ko ñaan di leen ko bàyyiloo xel mooy rek teg ñu ci yoonu mbaax yoonu njub yoonu siraatal mustaxima ëllëg bu ñu jàkkaarloog borom bi mën a am ngërëmam kon dafay jaadu rek saa su ne ñu di leen ñaanal yàlla yàlla di leen saxal ca loola. sunu kilifay aada itam saa su ñu di leen boole ci li nga xamante ni mooy ñaan mi. suba ñu xëyee rek jàkkaarloog ñoom ñaanal leen yàlla yàlla bàyyi leen fii ba lépp loo xamante ni ñu ngi koy mébét ci réew mi yàlla mën koo mottali lépp loo xamante ni itam yaakaar la nit ñi am ko ci ñoom yaakaar jojee bañ a tas li ko sabab itam du leen lu dul fàttali leen seen bopp fàttali leen ab yeew fàttali leen démb waaye itam dégtalaat leen ne leen siis boo gis rek toppal ma toog la te bés dina ñëw chaise ya ñu yor muy jiite réew mi danañ ko wàcc abal seen morom kon ngalawaay bu ñu ko yoree nañ ci def loo xamante ni ëllëg nettali ba dina rafet waaye tam bu ñu jàkkaarloog suñu borom ñu laaj leen lañ leen dënkoon muy réew mi lan la ñu bañ a am lay goo xamante ni dañ ko ci jëmale waa bitim réew souvent dañuy faral di wax ne dama leen di bàyyi xel torop ci wàllu ñaan aha kay dafay am solo ndax ki nga xamante ni bàyyi na ndey bàyyi bàyyi ñii bàyyi boroom kër ñii bàyyi ay jabar dem bitim réew daani doole ci réew moo xamante ni la fay dund condition la réew moo xamante ni dañu lay yemale réew moo xamante ni bu la fa metti métti dale bu la ay mbokki sénégalais dajaloowul jàppale la ci anam bi nga xamante ni moom nga ko bëggee boo sàggantul problème dina la dal kon gëm naa ni kooku nga xamante ni bàyyi na léppam ginnaaw jaadu na saa sune bu ñu xëyee ja ñaanal ko yàlla loolu rek moo sabab ñu di leen ñaanal kon lañ leen di ñaanal yàlla nañ leen ko yàgg ñaanal waaye nag yàlla yàlla teggi ci ñoom jafe service ba lépp loo xamante ni rek seen yitte la ñu mën koo matale mu mel ni que nag gis ngeen ko seen anniversaire kër gi ci la ñu ñëw tey mu nekk nag loo xamante ni wax naa leen ko semaine bi yëpp duma ko def man kenn dama ciy ànd ak ay invité yoo xamante ni euh, dañuy waxtaan ak ñoom non seulement ñoom ñooy animé émission bi man damay toogee ne waaye itam lépp loo xamante ni bëgg nañ ko laaj itam ci sunu nekkin ak sunu dundin ak li nga xamante ni mooy sunu liggéey naka lay tëddee ñu waxtaanee ko ak yéen ndax dama jàpp ne du lu yomb nekkul loo xamante ni mun na ne ndax 5 ans saa yoo xëyee sol yére toog jàkkaarloog askan wi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan wax loo xamante ni itam lu ñu mën a dégg la ndax damay wax ne accident làmmeñ accident oto alkaati bi mën na ko constat waaye accident làmmeñ fan lañ koy constaté te léeg mbir dab ñu ndax du ñu yàlla du ñu yonent bi du ñu wàlliwu du ñu xut bu samaan ay doomu aadama rek lañu doomu aadama yàlla moo ñaale ko ak juum waaye léeg ñu toog fii wax njuumte muy man ak sama morom danañ ko jël fàtte lépp loo xamante ni mësoon nañ ko wax ci mbaax indi ci ay coona indi ci ay ñol-ñol kon la ñu nekkee métti na la ñu lekkee tiis na suñuy condition liggéey itam suñu sañoon amélioration am ci loolu yëpp incha allah dinañ ci ànd ak suñu gan waxtaane ko gan googu nag du kenn ku dul nga xamante ni ba ma nekkee tout tànk daan taal rajo di déglu daan ko woo téléphone di rafetlu lu muy def mu nekk koo xamante ni itam yàgg na ci métier mi nekk koo xamante ni social la ko yitteel nekk koo xamante ni kër gi moo ko yitteel njaboot gee ko yitteel mu nekk ci télévision canal info muy soxna Gagne Sidy Gueye ma fas ko yéene dalal ñu séq waxtaan mu animé leen tey seen émission kër gi su ko defee nag lépp nag ñu ànd ko yéen ni nga xamante ni yéenay jaare ci 88 628 69 69 00 221 33 841 09 31 comme ni ñu tàmmee di ko ànd ak yéen lépp nag doon anniversaire lu ngeen ci rafetlu lu ngeen ci naqarlu luñ ci war a yokk luñ ci war a wàññi lépp dama koy taataan ak yéen ñi nga xamante ni yéen fas yéene jaar ci ligne bi dafa mel ni kenn sax rot na laataa ñuy dalal sunu gan ñu jël ko ba noppi soog a dellu si waat mbokk allo. waaw. sant yàlla tey ziar. waaw man Nogay Faye. Nogay fan nga may wooyee. mooy Géejawaay. Géejawaay Nogay da nga bëgg a participer. man xam naa fan may nekk si bëriwul. laa xam lu may nekk. waaw mais bu ñu nekkee foofu tamit yow rek la ñuy seetaan. ndeysaan ndeysaan neex na dinañu yee. ndeysaan dinañu koy jërëjëf. Mhm. tey nga wax daal am na importance. ndeysaan merci beaucoup Nogaye. ñu bëgg rek yàlla ko yàlla def. allahumma amiin jërëjëf kontaan naa. merci beaucoup merci Eh, jërëjëf ñu jaajëfal ko moom Nogoy Faye eh, nekk géejawaay jaajëfal képp ku nekk géejawaay waaye itam sama technicien yi nga xamante ni ay jàmbaar la ñu ma nekkandoog ñoom di liggéey léeg ma yeewu cuubu nag naqari deret lool du ma bëgg mu feeñ ci télé bi kan laa koy xëpp ñi nga xamante ni ñoom laa àndal di liggéey ma leen remercier bu baax a baax ci xarañte gi ndax nag wax naa leen deux stv yi équipe la boo xamante ni wax dëgg yàlla tubaarkàlla macha allah ñaanal leen yàlla rek la ñuy def boo ko weddee nga xool ko ci làmb ji démb dawal ba mu yàgg rek ñu dagg signalu 2STV yi te nit ñiy seetaan santiruñ ko benn yoon ndax équipe baa ngi taxaw xale yi farlu nañu xareñ nañu waaye tubaarkàlla yi macha allah itam euh, matériel baa nga fa woon kon gàcce ngalaama équipe bu 2STV gàcce ngalaama Bécaye mbay gàcce ngalaama képp koo xamante ni daal yaa ngi xëy jóge sa kër ñëw fii di daan sa doole te di la wax ne soxna Mbaye nee na lépp loo xamante ni bëgg na koo am ci kër gi bépp personnel yàlla na ci jiitu am ci ba xuus ci ba tooy ci xepp ma soog a yegg si ndax nag yéen a nekk la borom ma cay fanaan te nag kenn ku ci nekk bu la sa wërsëg jaaxalee rek wax naa ne xara sa bi xool li nga yéene nit ñi bu boobaa di xam li nga war a am ni mu toll naka la. ñu dem nañ ma ba baal ñu dem seetaan benn élément wala benn clip dalal sunu gan ndax man ak moom ñoo war a bokk waxtaan wi su ko defee ñu dellu si waat ak yéen bii ñaan itam ku dugg na gàtt ndax ñi war bëgg dugg bari nañu xëy na peut-être te temps bi duñu ko may kon ñu dem régie ànd ak ñoom te dala sunu gan dama ñëw fekk euh, benn femme bu wérul bi ma génnee yam ci fekk ni ñëpp wër ko ku ne du yuuxu ñemewu ko jege femme koo xam ne daf fi bàyyi doomam daf ko doon bëgg rey ñun ñu fexe ba nangu doom ji ci loxoom mu ne ma li ngay jëkk def mooy nga saisir préfecture bu Dakar ma daal di woote préfecture woo naa ko deux heures de temps mënuma jot préfecture kenn téléphone bi décroché wul. man ma jël sumay responsabilité menacé ko nangu xale bi bi ma nangoo xale bi nag ba pare bon bu xeex la woon man ak moom daanaka. ba nga nangu xale bi. waaw parce que daf ko juutal tànk yi di ko yëlëb. daal di jël sama daal dem ba ci ñoom bi ma demee ba ci ñoom ma ni leen ah yéen lu xew xanaa seen téléphone bi doxul ñun wóote nañu ba sonn ndax jaaxle.